ni ko yoon santaane te moom mii doy na ci sëg exemple ndax teg nañu fi coupe boo xam ni coupe présidentielle lañ ko tuddee moom mii moo ko jël te booba ñu dëkkul ci réew mi di ay français mboolem ñi nga xam ni dañooy yëngu ci wàllu kaaraange ña nga ca te surtout borom daaru muxti bi moo ko gañee teg nañu fi coupe yoo xam ni coupe de ministre des sports la moom mii moo jël coupe boobu teg nañu coupe boo xam ni tir et sas la muy lu jëm ci wàllu tiir jàng lépp lu jëm ci wàllu jam ak rëbbu moom mii moo ko gañe mu yooyu coupe yu bari bari yoo xam ni dafay indi indilaat borom daaru moxti ndam li ak li nga xam ne doo ko dondu muy fital moo tax ñu ñu am ko ci plateau bi euh, ñiy dégg daarul moxti di gàmmo di fital am na koo xam ne mi ngi koy wax sax ci internet bi nee na bu bu guddi gàmmu jotee seen maara yi ñoo mel ni kuy séyee filma waaye loolu nag ñooñu dañoo jar a leeral lan moo waral gàmmu gi ak fital yi te xamal leen ni ñu koy def am na ñu maîtrise bi xam nañu ko am nañu xam-xam bi looloo tax ñu ngi koy defee ne mu gën a rafete sëriñ bi dinañu ñëw ci loolu lan mooy euh, boole borom daaru muxti ak fital dinañu ci ñëw li nga xam ni yaa ngi ci yëngu muy fital ndax xam-xam bi nga xam ni aajo na ci yëpp yaa ngi ñu ngi ko àndal peeg ngeen ko ba mën cee liggéeyal sëriñ bi ni mu ko bëggee micro baa ngi noonu bu ko defee nga ñëw ak ñun ci loolu xam-xamu fital bi ndax dëgg-dëgg mi ngi fi ba tax ngeen mën a maintenir téye noonu loolu. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa maa ngi ziare mbokku taalibe yëpp di ci jiital sama xalifa bi dend ak man di Serigne Ahma Mbacke di jégalu kàddu yi yëkkati ci kanamam ndax wax dëgg yàlla waxtaan wi rafetlu noonu ko lool li ma ta wax yëpp wax na ko di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool waaw dëgëral ko ba mu mën a àggale yéene yëpp waaw li ma laaj nag moom euh, dinaa ci sawar a tontu ndax bëri na ñoo xam ne dañuy dégg gàmmu daaru di gis ñuy fetal. mu jaaxal leen lool waaw te dafa réseaux sociaux yi dafa nekk loo xamante ni bii ñëw ñëpp koy ñëpp koy xool. ñëpp koy xool. waaw léegi day rafet baax na nag bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy seetaan dara te xamuñu lu mu doon. ñu xamal ko ñu xamal ko nit ñi daal. Mm-hmm. waaw ndax man de wax dëgg yàlla damaa judd fekk ñuy fetal fii ci dëkk bi. Mm-hmm. waaw samay waajur dañoo judd fekk ñuy fetal mu doon loo xam ne aada ju yàgg la. waaw man nag yàlla daa def kii fi toogal euh, borom daaru di sëriñ Basiru mi ngi may dégg moo ma njëkk a jox fetal waaw ma daan ànd ak doomam ji wax sëriñ Atex ma ci bitim réew mu mu ñuy jàngal fetal waaw maa ngi moom sax daan naan ànd muy fetal ba mu yàgg mu may jox may fetal sëñ Bas bi waaw lu bari doom lu ma xam ci fetal booba moom it euh, kii moo ko njëkkee waaw ginnaaw bi yàlla defee loolu nag jamono di dox ba sëriñ si xaat yi nekk fi ci sëñ Abdou Khouross laa tàmbaloon di fatal ci gàmm waaw waaye daa fekkoon ñoom ñoo ma daan dooleel daan ma fital mm. ndax euh, ñoom ñaaka ñoom ñoo ko daan def mm. di dox bañ dem ba euh, jot mayetu leen ko xam nga loo daan def boo demee ba am ko lu ko defal rek euh, daanaka damay noppalu waaw mm. waaw léegi nag ñoom. ñoom ñoo waaw muy lu am solo dinañu ci dinañu ñëwaat ci ngërëm yooyu nga xam ni. Hmm. am nga ko li ko tàmbalee ci Cheikh Abdoul Khoudous. ñaanal ko suñu borom fayal Serigne Cheikh Khadi. waaw Serigne Abbas. ñaanal Serigne Mouhamadou Bachir suñu borom yàggal ko fi lool. waaw te ànd ko wér. jàpp naa ni euh, lépp loo xam ne yëngu na ci dëkk bi te du lu war a yëngu bu ñu ko déggee booba lay dakk hmm. kon bu ñu bàyyee boobaak léegi ñëpp di ci àndandoo. di ko def gën ngaa rafetu defin mooy wane ni ànd nañu ca loola euh, li nga xam ni mooy fital ginnaaw bëgg gi ak ni ñu ko euh, moomalee daaru muxti borom daaru muxti dond ko lan nga ñu ci mën a indil ci loo xam ne jamono ji ndaw ñi am nañu xam-xam ba peeg ko ni ko ñëpp xamee ndaw ñi moom ñoom ñëpp dama leen di sant ku mel ne ñoom Abdou Khourous Dieng ak Moustapha Diop ndax ñoom tamit ci tànk yooyu la jaar mm-hmm. li tax mu tudd kilifa yooyu loolu yëpp ay leeral la yoo xam ne damay bëgg nit ñëpp xam rek. Mm-hmm. ndax kilifa yooyu ñoo ko daan jiite fii. dëgg la samay nijaay ak samay baay ñoo daan jiite gàmmu fii daan fi fetal. Mm-hmm. waaw ñoom nag ñoo dem ba jiital ñu ci def ñii nekkatuñ fi ñii dem nañ ba mënatuñ ko xam nga. Mm-hmm. waaw léegi nag euh, ñu ne biñ demee ba xam ne lii yitteel nañu. dañoo dem gën cee sàkkuwaat xam-xam. ci wàllu fetal ci wàllu fetal. te loolu nag dafa doon lu yàgg ba ci koso gii rek sëñ Cheikh mi ngi ma wax ne ma képp ku fa kuñ fa masaan indi ngay jàng daan la na jàngal fetal sëñ Mahmadane da daan jàngale fetal sëñ Cheikh mi nettali na ma wax na ma lool sëñ sëñ Basante Dieng mii rek bërgi dem nee na ma sëñ Mahmadane moo ko jàngal fetal ci koso koso mu ne jàngal xam-xam jàngal leen fetal jàngal leen xam fetal <laughs> kon nag njàng gi daa doon lu yàgg. daa lu yàgg. léegi léegi nag bi ñu demee ba jamono nag. gën a gën a gën a ubbeeku ñun it dañoo dem fa nga xamante ni bi fa la fa la gën a yaatoo ñu dem gën fa sàkkuwaat ay xam-xam. ba ba ba ba mën ko. waaw ko. loolu loolu dañuy. te te tamit dafa nekk loo xam ne ci loi bi la bokk même fetal boo ko doon jënd de maanaam da ngay dem wut euh, dina la defal autorisation d'achat d'abord. mais balaa ñu la defoon autorisation d'achat dinañ def ci waay enquête ba xam ndax yow war nga ko yor wala waroo ko yor. fetal bi it balaa ñu la koy jaay di nga dem euh, di nga am ay séance de tir ñu jàngal la nan nga koy utiliser ak lan mooy war a tax nga nga jëfandikoo. Mmh. loolu yëpp dana doon ay ay yu lay defal. Mmh. Budaya dee lu jëm ci wàllu ay compétition ak yooyu daa am ñoo xam ne da leen neex ñu ñu bokk ci am ñoo xam ne da leen neex duñ ca bokk. mën nañoo yor xam-xam dem ba mu sama bëgg-bëgg. ma ma ma topp ko nekk ci loolu. 2003 mhm. euh, laa njëkk a inscrit ci club de tir. Mhm. waaw 2003 laa njëkk a inscrit ba may demee foofu it. dama faa fekk ñoo xamante bi ay marine français retraité lañ ay sniper lañ. Mhm. ay tireur de lañ waaw. am ca élément ay ñoo xam ne GIGN lañ nekk ñii nekk waa BIP ñoom ñëpp fa lañ nekk. Mhm. waaw ma dem ba bokk ñoom yëf yi waaw. raw leen dèjà sax gis nañu ko. loolu dañ ciy ñëwaat ci xam-xam bi nga wax ni sàkku nañu ko. Mm. ndawi Daaru Muxti yow ñëpp nga koy wax ci seen tur. Mm. Eh, ki koy dégg théorie lay doon ci moom. bëgg naa ñu pratiquer ko nga wan nañu ni am nga xam-xam ci fital ci nu ñu koy téye nu ñu koy ubbee parce lii bu ma juumul moom la dama lay teel ñu xam-xam. bi daarul moxti am ci fital jaare ko ci yow mi nu ah, ñu koy téye nu ñu koy dañ koy ubbi kii kii bi yëpp kay si daanaka ah dañu ah. koy ubbi bu ko defee ah, bu ko defee mën a xam hmm. dëgg-dëgg xam-xam bi ndax bu ñu ko dee wax tey ku ko seetaanaat fii mën nga dem reprendre ko faneen wan ni am nga ci xam-xam waaye ngir ñi dégg xam ni daarul moxti dañ ci am xam-xam da nga ñuy wan d'abord bu fital gi tegee nii ki ko bëggee tilisi rek nan la koy jëlee nan la koy ubbee nan lay def ba utiliser ko. xam-xam bi fi mu tàmbalee mooy. Mhm. fetal bi bi bi bi mu dikkee. Mhm. gis nga ngémmiñ gi nee la jëm fa dara newul. Mhm. waaw ndax sëñ Fallou daan na wax boo am bal mu ñàkk bal yëpp na jëm fa dara newul. dëgg la xam nga fetal gi bi nga ko fi indee gis nga daa am koo xam ne nee la ko tegee maa ko wëlbati ko mu jëm nee. dëgg la waaw. léegi yow li waroon laaj mooy boo gisee nag na ko war a bi du dara lu dul boo gisee fetal balaa dara di xew na nga ji na ko jël na ah. maanaam fetal gi boo ko jëlee fetal gi dama jëlee mm-hmm. li nga la nga njëkk def mooy xool ndax mi ngi sécurité xam nga am na ñoo xam ne xamuñ si dara bu dee lii fetal yi ay fetalu yu xaw a sophistiqué la mm-hmm. bu dee lu jëm ci ñaari ngémmiñ ak yooyu mm-hmm. ndax ñu ci bëri ay ñaari ngémmiñ ak ay benn ngémmiñ la ñu yor balaa dara di xew da ngay sécurité boo ko sécurité bu doon bu dee ñaari ngémmiñ nga yor da nga koy damm da nga koy damm kar am na foo koy tijjee damm ko mu mu tijjee ko nga xool ndax am na bal wala amul bal su fekkee da nga ju da nga jubloo sox pour fetal ci kaw so da nga koy sécurité ba pare boo sécurité nga dugal bal bi waaye boo ko dee tëj am na ñoo xam ne da ngay gis dañuy damm fetal bi ñu koy tëj tëj ko doole te loolu baaxul lool loolu en général day yàq li ñuy wax percuteur. li ñuy wax percuteur ci fetal. loolu da koy yàq. soo ko dee tëj danga koy tëj nànk. da nga koy tëj nànk mu tëju soo demee ba war a fetal nag su dee da ngaa ci biir mbooloo li gën mooy boo mënee jug taxaw ma jug taxaw. nga ji nga booy fetalit boo mënee épaulé nga épaulé. épaulé li épaulé li ñu ci jublu mooy. Mhm. kano bi na na na da ngay day mel ne da ngay diir luy naaw. day mel ne da ngay diir loo xam ne day naaw waaye doo jékkee rek def ko nii rek tiire noonu xam nga wolo wala waaw léegi nag ginnaaw boo demee boo demee ba yëkkati fetal gi def ko nii si ngay soog dindi sécurité bi ba mu leeral ne bi jëm na fu dara new da ngay yëkkati fetal gi ba pare soog a da ngay yëkkati fetal bi ba mu ba dem ba dem fu dara new mu leeral ne yow lii nii boo ko téeree moom du seq kenn lenn nga dindi sécurité bi boo dindee sécurité bi nga téere ba noppi delloo sécurité bi boo delloo sécurité bi nga daal di koy damaat nànk rocci xootu bal bi même boo demee sax euh, centre de tir su ñuy waaj a tiire maanaam bu ñuy soog a dikk ba toog kenn ku nekk dañ naan tireur avant box mooy tir chaque tireur bu nekk di nga am foo xam ne lu mel ne case boo xam ne fa ngay taxaw pour tiire waaw te kenn amul droit laal sa sa arme fi ak jotoo ci ndigal waaw buñ nee nag tireur préparez bu buñ ko waxee mooy ti tireur yi ngeen préparé daal. Mm-hmm. kenn ku nekk di nga jug dem waajal pour xool ni ngay waajalee daal bu defar charger say bal. Mm-hmm. waaw même boo chargé say bal amoo droit tireur dañ naan tireur êtes-vous prêt ndax pare ngeen suñ nee tireur prêt après ñu ne. ñu jékki-jékki rek siffle mm-hmm. ne feu fekk na dañ leen dañ naan comme cinq balles en cinq minutes xam nga waaw standard 150 secondes. Si vous tirer poser les armes culasse ouvert culasse ouvert a mm-hmm. pistolet culasse ouvert culasse koy ouvert ba mm-hmm. tirer dañ poser les armes culasse ouvert. ñu teg arme yi ubbi nga tijji culaas bi mu ubbeeku. nga teg ko te amoo droit laal ko. même ci biir tiir bi sax boo doon tiire sa arme sa fetal kale. wala mu wala mu wala mu am lu ci sikk rek amoo droit jéem koo defaral sa bopp. da ngay def incident nii ngay def sa loxo ne incident nga teg ko doo ko laal yow nag ñu teg ñu bàyyi la ne ñee continuer bu ñëpp àggalee nag ñu ne incident box numéro 2 wala box numéro 4. ñu ñëw xool yow lan moo tax sa fetal kale. ñoom ñooy ñëw xool. waaw te incident yi ñaari yoon lañ la koy may ñaari yoon doo nga am droit wax incident bu ñettee dañ lay dañ lay dañ lay éliminer mhm. waaw xam nga li ma la mhm. loolu lépp liñ ci jublu pour jàngal nit ñi prudence su fetal mhm. fetal dafa nekk loo xamante ni bi du du foowukaay xam nga li ma la am na fi mu ne nii même comme euh, bu ñu nekkee en pleine compétition am na erreur yoo xam ne ku ko def rek dañ lay éliminer rapidement duñ la baal duñ ko amuñu caaxaan suñ jékki-jékkee di tiire ba mu yàgg cible yi am lu benn bu bu ngelaw bu ngelaw dindi wala yooyu dañ naan tireur pour poser les armes ndax am na ko war a dem defari cible bi diggante bi kenn ki nit ki di dem di defar cible bi kenn warul laal sa arme xamali wala waaw mais nag fii nag macha allah dañuy gën a santaat yàlla rek ndax sëñ Tuubaa fi ñaanoon gaa ne ña boobu ginnaaw bi ko maam Cerno yabalee sama maam sëñ Modou ñoom ñu dem rëbbal ko waaw ginnaaw kooku ba sëñ Tuubaa ñaaree ne ñaanal naa leen fetal bañ cee lool kenn loolu dañ ci sant waaye du tax ñu naagoo ca nag dañuy xool ni jamono fi jamono toll ñu dem mm. gën koo gëstu liñ euh, liñ ci bëgg liñ ci bëgg a toftal ci laaj nga xam ni moom lañu ñu tëjee mooy bal yi ñu ciy def bal rayeel la wala boog yan façon bal la waaw mën naa mën naa teguwaat ndànk ndax Euh, leeral nañu ci lu bari li mooy wane ni Daarul Muxti li ñaan bokk ci